te defe naa buñ ko nangoo loolu mooy yàq réew mi xam nga loolu nangu woo ko waaw ba yóbbu nga ko ci yoon ba atte nañ ko kon absolument waaw kon nangu jarul ngay nekk fii di ci wax ba di ci wax journaliste yi di dugg ci yeneen détail mais ay journaliste la non d' accord mais bëgguma nga dugg xam nga lu ma bëgg journaliste la d' accord mais xam nga lu ma bëgg ko def mais s'il vous plaît bu nga wax dafa am lu ma bëgg ñu leeral ko mhm. parce que dafa am benn affaire boo évacuer mhm. te mënuma ko comprendre mooy ban mooy sa sa sa page mhm. Facebook la wala page bu mu mën a doon nga ni mhm. administré wuloo ko keneen moo koy administré alors que li ñu ci wax concerné wu la loolu nga bëgg a wax liñ ci wax liñ ci wax liñ ci wax après juste verdictu ce procès ak Ousmane ko mais loolu loolu loolu ki administrateur bi ci boppam wax na ko nee na moom mu bind moo tax man la il faut suivre l'actualité. non mais waxuma non xam nga waxuma il faut waxuma xam nga man man man man. xam nga da nga ne ma man maa ko wax non non man la du man. Mambay Mambay. dama bëgg non da nga ma wax ni que man la man la du man Mambay. yow yow nga yaakaar ni a un communiqué qui dit ni que c'est nga yaakaar ni. man wala keneen. waaw communiqué bi daf uh-huh. koy concerner quand même. absolument cest comprendre la page de Mame Mbaye Niang. Uh-huh. am ku ci bind. man ma naan ma Samba la wala ma Demba la. alors que yow mu nekk sa page. non loolu mën ma ko comprendre mais du sama page parce que boo demee Facebook tàppe di nga gis 45 pages yu Mame Mbaye Niang. boo demee xam nga ni ñëpp xam nañ ni boobu mooy l'officiel. déedéet bul wax loolu. c'est pas non man aw page officielle nag moom laa wax. c'est pas la page officielle boo demee Facebook tapé di nga gis 1500 comptes Facebook ñoo xam ni photo Mame Mbaye Niang la ñuy def boo demee Twitter tapé di nga gis 2500 comptes Twitter yoo xam ni photo Mame Mbaye Niang la ñuy def yow am na ñoo xam ni. ok il se réclame de toi. d' accord léegi yow bi nga mais ko te mënoo ko tere. mais d' mhm. ko bindee daf la échappé. c' est man li ma jaaxal mooy ak lu mën a xew. Mhm. su fekkente ni y' a quelqu' un koo xam ne mu ngi administrer sa page. information bu toll noonu. Mhm. war na la ko communiquer. ba nga am sa avis. non mais nga doog ko publier. non non non non déjà Pape il faut que ñu remettre yëf yi à leur place bi ci njëkk mooy li ngay wax ni que loolu la bind je me réjouis de ce verdict nous rendons grâce à Dieu loolu la wax de. waaw pour ñi ko déggul maa ngi sant yàlla. ci ci ci ci ci acte bi waaw setal na sama der ak yooyu quoi sama der waay loolu ah, loolu la ñu wax mais loolu nag nee naa la loolu binduma ko mais ñëpp jàpp ni procès bi jeex na parce que loolu jeex na après verdict bi ñëw na condamné nga si jeex na mais bu ñu jékki-jékkee déggaat par exemple nga def appel mooy yow am nga beneen intention mhm. bu dul na affaire bi leer intention beneen bi du dara lu dul barrer la route à Ousmane Sonko bañ nekk candidat de la candidat ci élection présidentielle yi parce que xam nga ni condamnation bi. su mhm. amee mais mënatul nekk candidat. te xanaa loolu nag lu mën a xew. papa nga ñëpp waroon nañ défendre loolu ba mu des yéen <laughs> Sénégal yëpp. corporation yëpp waroon nañ défendre loolu ba mu des journalistes yi papa ngañ loolu dañ ci daan seen moroomu journaliste six mois. Mhm. avec sursis attaque wàll ci ginnaaw. daañ ci télé daañ ci rajo daañ ci site internet ñun ñëpp li leen daan six mois la mm-hmm. am déet mm-hmm. te ñooñu waxuñu ni que am nañ ay firnde au conditionnel sax la ñeen nit ñi bind moom mu toog ni man yor naa firnde yi génn créé ci boucan ba ñaari nit faatu ci ñu dem indiwul firnde yi Papa Ngagne bu ñu défendre loolu. d'accord loolu libertinage la non xam nga li ngay jàppee défendre quelque chose. non non non ak bëgg lu n'a rien à voir nekkuñu fi pour défendre. benn benn cause. c'est-à-dire non non non. non bu fekkee li li li li ñuy def. non boo bëggee mu leer da nga naan ma lu tax nga def lii. non non non la koy posé. du yow yaa la koy laajee. mais boo li nga xam ne laaj naa la ko mooy Mhm. yow appel bi. Mhm. appel bi. Ah waaw mais mais munoon na ñàkk. mais pour lan muy ñàkk. mais pourquoi du ñàkk. déedéet mais euh, euh, euh, procès bi am na. Ah. gagné nga procès bi. waaw nee nañ li ñu wax amul. mais war nga ci am satisfaction mu jeex. déedéet su ko defee moom mu mën a am occasion. xam nga lu tax du ma ci am satisfaction. parce que bi procès bi jeexee moom daf ni ñii ay waxi caaxaan rek la ñuy wax. d'accord. du moom loolu la wax. d'accord léegi foo toll ñun li ñuy def loolu lépp ay caaxaan la. léegi foo toll nga bëgg mën ma yemale ko fa. foo toll ci saisie bi ak yi nga yi nga entamé woon. waaw mais yooyu yëpp c'est en cours. mais nga lëbbatoog di changer jéem a changer ay tour mais képp ku ci taq dinaa la topp. képp ku taq. pour jël këram mag jël ay. papa ngañ man du ma wax di dellu gannaaw du ma wax di changer moom bu fekkee day foo man fawuma Eh, ma Mbaye nag yaa ngi bëgg metti ah non non euh, xam nga non yaa ngi bëgg a metti quoi ay ah. politique yu bokk génération bëgg a egg fii aussi nañ waxante dëgg aussi am na ci loo xam ni non man non non xam nga nekkuma fi di joxe benn leçon de morale mais egg egg c'est-à-dire non mais xanaa waratoo toll nag di tirer ci ambulance war nga mën a dépasser foofu j'espère bien ban tirer ambulance ki nekk ci kaso bi nii waaw nga naan non damay dem jëli këram damay dem jëli nangamam damay def nangam mais a c'est compliqué une dette dans cette histoire là ñetti bakkan dañ cee rot benn Dakar benn Ziguinchor ci ay caaxaan yoo xam ni magum jëmm moo taxaw wax lu ko leerul lépp lu société bi laaj ak lu yoon laaj ni dafa war a tegu ci kawam du man maay dem di ko teggi yow xooloo ci ñi dee ci caaxaan yi xooloo ci ñi taal ñi taal seen alal ci ay caaxaan ci ay wax yu mag yoo xam ni teguwul fenn yow xooloo loolu lépp yow li nga gis mooy un politicien man Sénégal depuis kañ la am opposition ñaata nit ñoo ci nekk sama génération danga maa mës a dégg ma am problème ak kenn ki gën a virulent ci opposition bi Barthélémy Dias day toog ni la ma mbay sama xarit la. Hmm. man damay toog ma assumer ni sama xarit la. jatara dafay toog ni ma mbay sama xarit la bokkuñu position de. boo demee euh, Babacar Thioye ba dafay taxaw ni Mambay sama rakk la pourtant amul amuñu benn problème mais nit bu ñëwee bëgg a singulariser wu bëgg a. mais Mambay. départager wu dëgg pourtant xaritoo boobu ñu ngi ko doon wax sa diggante Ousmane Sonko. ba nga bëggoon militer ci partem mais loolu ñu ngi ko doon wax aussi mais loolu mooy moom ak waxi télé yi ñooyam. déet waay itam. boobu tamit porté woon naa boobu porté de. ma mbay boobu te loolu mais loolu audio yaa ngi fi aussi. Oh, ban audio mais ñu dégg ko. papa ngañ. c'est que mais lan moo si am. xam nga li ci am mooy da nga may ci sama position bi ma nekk donc yow amoo droit ni ma baaleel parce que yooyu bi mu amee yi ngay wax nii bi mu amee bu ma porté woon plainte comme bii lay demee dañuy dem jàpp ni ràpp ci kaso bi wala ñu dem jàpp nga ni non aw ma preuve li ma wax dama ko sos kenn du sosal nit. ma mbay. ma mbay waaw lay wax nii mais ay nit dañu <laughs> li ñu lay wax nii mais pourquoi porté woo plainte ci loolu aussi. mais kon moo tax ma ne la nag soit Papa Ngagne. non non non non xaaral nag déedéet defal ndànk man ñëwuma fii pour ping pong soit tu suis l'actualité wala tu suis pas l'actualité am na fii ku dem tribunal wut avocat ni dañ ma nax plaide de bonne foi maa ngi PV kon foofu tamit erreur laa def waruma woon baale firnde ni ko waroo baale mooy lii ngay wax nii. kon parce que tey maa ngi toog ci tele Mame Mbaye non papa ngañ déedéet déglu mam tey maa ngi toog ci télé. Mhm. nga may laaj ay affaires yoo xam ni baale bii ngay wax moomu ko yóbbu. mooy kon buñ bëggee saafara jàngoro bi dëggantaan mooy lépp lu nit def na fay ba mu mat nañu bàyyi maslaa non maslaa maslaa ci suñu réalité la bokk. non non bu fi bu fi bëgg a jéem a maslaa. non maslaa suñu ay culture la bokk. masla maslaa non maslaa. maslaa ci fukki nit dee. non maslaa. maslaa maslaa ci dix milliards tàkk. non maslaa ci ñu taal ay Auchan maslaa ci ñu paralyser réew mi maslaa ci ñu bëgg a toj réew mi. maslaa boobu bu fekkee maslaa boobu ngeen di digle man d'accorduma ci nekkuma ci te duma ci ànd. moo tax sa papa ñaan la ci njëkk nga bay. sama papa fan la ma ñaan njekk mais loolu aussi da nga bëgg wax ni loolu amul quoi. amul. vu ses ak Ousmane Sonko. ba sam papa ban relation la am ak Ousmane Sonko. mais ci coalition politique loolu ñëpp xam nañ ko. mais moo tax ma ni la papa ngañ foog naa ak dégg naa mais waru leen ci àtte yow man maa ngi toog laaj nga ma man la amul amul gëmal ni ko amul parce que man jomm naa di toog fii nii di wax. mais ma Mbaye sa papa ñaanu la njëkk ci nga teg affaire Ousmane Sonko ci suuf plant bi. li nga bëgg a wax bu fekk danga nga bëgg a wax am na ñu ko seeti. pour mu wax ak man pour ñu teggi ko loolu am na. waaw man ak sama papa la wax du loolu. xam nga papa ma ci nii buñ la tuumalee wax la lu dëgg boo ci bàyyee sa dagan sa jar na bàyyi sa bakkan sama papa yar ma ci nii que boo nekkee ci dëgg bu dee yow rek yaa ci wet dee ci sama papa yar ma ci nii nga lépp musiba ak loraange buy jógee mënta jóge ci doomu aadama ca yàlla rek la mën a jóge ma yaroo ci loolu nga may wax wax yi nga may wax. nañu bàyyi naxante bi nañu bàyyi naxante bi ay sos yorul réew ay sos moo taal réew mi papa ngañ ci fii la taal fi nit ñi di toog mais di wax jii nit ñi ay sàcc di tam ñi ñi ay dëmm man toog naa fii ngay wax noo yéen seen affaire yi leerul est que du ngeen dangalal góor jigéen mhm. est-ce que ba tey jii nii ñuy wax mandaam jeex naam jeexul est-ce que mos ngaa dégg benn yoon ñu wax ni dañuy dagalal góor jigéen réew mi yëpp ñu taal ko ci ay musiba ca ñi def musiba yooyu koo ci xool ci ginnaawam la muy ji ñi ñëpp moom ci loolu la nekk wax ji ñi ñi wax teg ko ci non ay xaw ma àq ma sàmbaa ko dal àq ma dembaa ko dal sama àq moo ko dal d'accord donc problème ba may jàppanteek moom mhm. nee naa leen tey lay egg ci daj dëpp kii ma song tey jii nii ak fii mu egg billaahi wallaahi taalaahi dootul doonati kii te boobaak léegi li may wax ci kàttanu yàlla mi ngi am. musuma wax ci nga ko teg musuma wax ci dëgg nga ko teg ci dëgg laa ko teg. man du ma sosal nit lépp lu ma ko wax mas waxal moom yor naa firnde yi lépp lu ma ko mas wax mas naa wax ni dañoo jubul ma ni ko yow yaa jubul ñu teg ci ñeenti fet affaire 94 milliards yi génn mu taxaw assemblée nationale ni wéy affaire dañuy sàcc xaalis bi bañ demee ba ci biir enregistrement yi ngay wax moom enristrement moo génn këyit buñ signé. ñu ni douze pour cent la ci am kii ngay wax nii que dama koo nen nenn ma ko li ma wax ci moom lu am la moom moo la xool xool sénégalais yi ci ay bët xool ñu ñu ñëpp ni damaa dem suite boo ci di fa faju yow nga xam ni docteur amu fa sénégalais yi xam ni mocckat nekku fa ñun ñëpp ñu xam la fa am ñu ñu ni ko pat ay bakkan ci ñu taal réew mi ci loolu tey mu tuumaal ma ñu dem ci yoon indiwul tuuma bi nit ñi bëgg a wëlbati wax ji bëgg ma dëkkale moom fa nga xam ni moom moo fa demal boppam man dëkkuma foofu xamewuñ ma ci loolu doxewuma ci noonu. d'accord alors euh, appel bi. waaw waroon nañ ko enrôler ñi jàppoon le 26 ba le 27 ñu doon ko dégg. am non non appel bi condamné nañ ko. ok moom moo def moom moo def recours dem cour suprême. Mm -hmm. samay avocat bind nañ cour suprême date bi mat na dañ ko war a enrôler bind nañ dinañ ah, mais annoncé woon nañ une date quand même ba ba ba presse bi xawoon ko ñoom ñooy annoncé ay date parce que ñoom ñooy wax lu dul am le 26 boobu ñuy wax mais ñoom ñoo koy wax man mi dossier bi concerné bu ñu bu ñuy enrôler cour suprême dinaa ko yëg parce que ñoom ñoo nekk ci ay naxaate ñoom ñoo nekk ci ay pexe ñoom ñoo jël yoon teg fekk ko fii fekk teg fii yoon teg fii dëgg nekk ci ay pexe di jéem a nax sénégalais yi mm-hmm. date bi le 10 bi mooy date butoir bi ñëpp déposé nañ le dossier est en état à tout moment mën nañ ko juger suba cour suprême mën na ko enrôler le 10 novembre bi ma ni le 10 novembre bi passé ok moo nekkoon date limite procureur ak parquet man ak moom ak ñëpp déposé nañ pourtant loolu lañ ni kenn mosu ko gis de. waaw dossier bu ne gis nañ ko fi mais bu gaawee noonu kenn mosu ko gis. waaw déedéet parce que papa ngañ diffamation ak délit yooyu ci deux mois trois mois lañ koy jugé du crime assise mooy dem ay six ans sept ans huit ans mais ñit ñi dañuy wax ci luñ xam nee naa la pap ñii dañoo jël droit teg nii jël dëgg teg nii nekk ci ay pexe li ñuy wax dara amu ci dara dara dara dara dara amu ci ba ci coow lii ñu indi ci ay retiré nañ ko ci fichier beeg dañoo jël droit teg ne nekk ci li leen neex lii ko dal lii lépp ki ko ko teg mooy ki ne ko woon bul dem ci procès yi bul wuy ju yoon li ko dal lii yépp moom moo ko def moom moo yëkkati boppam dem ci barab moom moo njog toog ci kanamu sénégalais yi ni leen Mame Mbaye sàcc la yor naa kayit ba ci cappaandaw gi fii ba euh, ilaa yow mi diini wallahi azim du andi kayit parce que lu amul nit mënu ko andi ñu jël loolu lépp ubale ji ñu sàcc tam ñu dëmm ni ay franc-maçon lañ gëmuñu yàlla te ñi koy wax te di woote woo ci yàlla ajjuma dañuy taxaw ci mimbar di fàttali nit ñi ay addis di woo nit ñi ci yàlla mm-hmm. nga ni ñii dañuy défendre góor jigéen yow ka nga topp ka ko jiiñ la mu ko jiiñ lu mel noonu la mais nañ delloo si xel yi ay bakkanu doomu aadama dañ ci gaañu seen pexe yépp fi mu nekk mooy à partir du 17 ak mois de décembre ñu taal réew mi créer conditions yi. non non mais ça dépend mi ngi non mi ngi dépendre mi ngi dépendre aussi ci lan mooy lan mooy euh, lan mooy nekk décision CEDEAO. mais le 17 par exemple tey bu fekkente ni euh, CEDEAO dañu.